asalaamaaleykum mbokk internet yi mbokk Koungheul ñu ngi fii nekk tey ci mairie bu Koungheul mm, pour fekk fii kan honorable au conseil mooy Aïcha

mais tamit gis ngeen gel hydroalcoolique ak masques yi ñu ngi plus de 3000 masques la jël pour jagleel ko moom au concert ay chambay mois bi nag femmes yi ko war a jot ñëw nañ toog gis ngeen bruit bi nu mu bëri ñu ngi fii ci kuuru mairie bu Koungheul ñu ngi noonu war a jot masques yi léegi léegi nii gis nañ si premier adjoint au maire sax bu bu fasté kenn toog ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoo nañ fekkee ci lii ay chambay mu ngi noonu moom moo def lii matériel yi ngeen gis nii moo ko def moo toog noonu ci kanam tuuti ñu laaj ko nan la mbir mi demee ak ñan la ko war a jox ñu waxtaan ceeg moom moo nekk noonu kon ci kanam incha allah ñu waxtaan ak xam ne daal ñu ngi conseillère yi conseillère di leen dalal ci cérémonie bi nga xam ne cérémonie de remise de masque la une femme un masque bu nekk am solo boo xam ne mën am ba concert ci sargal di leen euh, gërëm di ci bi ñu nekk muy contexte corona Covid 19 nga xam ne bu ñu seetloo geste barrière yi dafa nekk loo xamante ne sol masque bi dafa am solo kon yaakaar naa bu ñu ñëwee ne dañuy jox jigéen ay masque loolu yombal la dimbale la mais warul yem rek ñu jox la masque bi nga téye. dafa war a yem si ñu ko ñu ko joxee masque nga takk masque bi mais aussi boo si jógee yow it nga seet ñeneen ñoo sensibiliser pour que ñuy takk masque yi keneen koo xam ne aussi mën nga am ñaari masque ñetti masque sax lu mu tuuti tuuti nga dimbale ko yeneen donc je pense que suñ ko defee loolu dina am solo docteur Niang mu ngi nii ñu ñëpp dañu bokk comité départemental de gestion des épidémies nga xam ne préfet moo yàlla def na fi amoon na cas yàlla saafara na ko ba dara amatu kon mu ngi noonu fañ ne woon delluwaat nañ comme delluwaat nañ ko nag dañoo war a gën a góorgóorlu de sensibilisation communication jigéen ñi gën a am solo moom la nekk ci kër yi kon véritablement loolu lañ ci doon di sant ñëpp vraiment di leen gërëm ci initiative bi mu nekk loo xam ne ñun ñëpp war nañ ci gën may geste bi ñu def pour en tout cas xeer ñu naan mbas mi monsieur le maire wax na ko sànq amoon nañ ay cas je que géré nañ ko ba yi explosé wu loolu tamit bu jafe la woon xam nga yàlla may nañ man gérer cas yooyu ba mu jeex léegi mën nañu wax ne département bi département bu Vierge la ñu war a góorgóorlu te léegi li ñu constaté mooy y a un relâchement maanaam nit ñi dañoo bàyyi li ñu takk suñu masque ñii boo waxee ñu ne aw ma ñii bu ñu jëlee masque juste dañ koy wàcc seen seen seen seen bakkat wala seen sikki euh, seen sikki pour pas bañ kese ñu ñu ñu amande la loolu nag baaxul donc di remercier waat également euh, l'honorable ci geste bi mu def ak slogan bu ngeen dem une fois pour loolu tamit vraiment lu lu rafet la mais monsieur le maire wax na ko sànq ñu yokkaat ci ñu takk masque ñu bëri am nañ masque boo waxee mu ne mën sama poche wala mën sama sac du ma ko ma ko du ma ko sol donc slogan bi bu baax la une femme un masque dañ koo respecté ba nga xam ne vraiment jigéen ji kenn du dem ñu ñu des gis nañ ni jigéenu département bi gis nañ responsable politique jigéen ñi ñu ci engagé chaque jour ñu ngi def ay doom ñun nag lii lañ soxla ci instant bi parce que instant bi bu ñu neexee contexte bi dafa changé bu njëkk transport bi amatul léegi reprendre nañ transport nit ñaa ngi dem nit ñaa ngi dëkk nit ñaa ngi dem nit ñaa ngi dëkk donc rek dañu war a gën a góorgóorlu moment bi du moment de relâchement ñu gën a góorgóorlu di ñaaxaat vraiment askan bi ci mesure ndax mesure barrière saabu yi mën a disponible nit ñi di raxas nit ñi di takk masque di ko remercier di remercier également responsable femme yëpp di ñëw en teewee yi en tout cas message boobu ñoom ay porteur de voix porteuse de voix lañ su ngeen demee mën ko ñi takk masque yi bu ñu takkee masque yi yàlla mën nañu dem musal ñi ci feebar comme que dès le début dañ doon def combat bu baax bu jigéen bi kenn demul des ñoo ci jàppoon bañ amuñu gaa yàlla def na am nañ 3 cas géré nañ ko amatul dara dañu recommencé recommencé surtout de santé bi ñu war sol ni bi 3000 francs lay masque bi man war changé deux fois wala trois fois ci jour donc dana ma dikkee man six euh, six mille francs par jour pour jëlee deux cent personnes ci département bi dix jours yi millions lañ war a dépensé ci masque pour temps normal mais ñun amuñ loolu comité de développement sanitaire ci comité de gestion de l'épidémie bi nga xam ne tamit ay euh, nu mu tey doomu dëkk bi ñoom ñoo génne seen xaalis di ñu ko jox ci la ñuy génnee ay masques pour satisfaire pour protéger agent agent de santé parce que agent santé ñu ñu ko exposé pour dara jot foofu ngay ñëw ñu nag dañ ñoo war a protéger donc geste bi mu def vraiment geste bi ñuy ñuy la ko ñaanal yàlla ko yàlla may gudd fan. amiin yàlla may la également li nga def bi yàlla na ko yàlla même euh, doublé nga am kàttan bi di ko defal lii kontaan nañ ci trop jas bii danañu mën a visière yi nga wax danañu mën a protéger ñu dem sur le terrain thermoflash également parce que dañoo nekkoon en déficit de thermoflash thermoflash dañoo nekkoon déficit démb sama benn thermoflash bu ma ne bu ma yoroon sama bureau laa dem jox fois sapeur te ba may ñaar amoon benn thermoflash mais tamit sapeur ñu ma considéré ñàkk am thermoflash damaa yëkkat sama thermoflash wax mu sama bureau laa ko def moom laa démb laa def def thermoflash te yàlla def en tout cas ñu jox ko quatre thermoflash donc di ko sant di ko gërëm vraiment ci nag gërëmaat monsieur le maire par rapport seen taxawaay ci gestion bi dafa war a continuer jigéen ñi nag ñoom ñoo ci war a gën a impliqué xale yi nga xam ne ñu ngi génn ci benn lii yombul euh, man nag defuma ko ngir politique Euh, madame la ministre euh, Ndeye Saly Diop Dieng ministre de la femme moo ne dafay créer une benn initiative bu ñuy wax une femme un masque ma ne ko man duma ci des gannaaw ndax Koungheul laa dëkk te jigéenu Koungheul dañoo war a protéger wu ba bu ñu jot ci mbas mi li li ñu mën a jàppalee mooy ñu jënd masque lii nag xeeb naa ko lool néew na trop 3000 masques la ak ay thermoflash ak ay visière ak gel hôpital am nañ ci wàll waaye masque yi daal jigéen ñi lañ bëgg ñu propulsé ko ci dëkk bi ak commune yëpp nag ñu ngi fi neuf communes yëpp ñu ngi fi bu soobee yàlla lii commencement la rek incha allah luñ amati dinañ ko fi indi pour les femmes may gërëm nag samay responsable alaaji Assane Diop Mayacine Camara <coughs> Ablaye Seydou Sow ñoom ñëpp jàppale nañ ma wax dëgg yàlla dama leen di gërëm di leen sant parce que mënoon nag ma seetaan waaye seetaanuñ ma kon lii rek la ànd di jëriñ kon maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp du ma gudd masque yi daal da jigéen ñi taxaw jigéen bu ne na am ma te bu soobee yàlla bàyyeegu ma lu ma dajalee ti dinaa ko indi pour la commune de Koungheul fii laa juddoo fii laa yaroo Koungheul fal ma kon lu ma am dinaa ko bokk maa ngi gërëm ñëpp di ñu indi nii jégle ko femme yi léegi def nga ko jox hôpital ko jàppale ci liggéey bi est-ce que mën nañu xam lan la waaw indi nañ 3000 euh, masques mhm. indi nañ ñaari carton hydroalcoolique mhm. indi nañ 4 thermoflash mhm. indi nañ 25 visières waaw. ok ok jërëjëf. département Koungheul commune de Koungheul man Ndiodé présidente foyer de la femme bu commune de Koungheul tey ñu ñëwoon fii tey ci mairie Koungheul. tey noonu réceptionné li nga xam ne honorable au a Adjaratou ay Mbaye indi woon na ko jagleel ko jigéen ñi mu nekk loo xam ne c'est une première depuis Covid bi ba mu ba léegi parce que nag boobu ba léegi ñu ngi ci combat bi mais c'est la c'est la première fois ñun ñu impliqué ñu ñun femme mën na am rek suñ ministre dafa am slogan boo xam ne moom la yëkkati muy une femme un masque ba tax na honorable bañ a jàdd yoon jaarale ko ci li nga xam ne moom la ko ministre tutelle bëggee ñëw jaarale ko ci loxo jigéen ñi kon vraiment honorable au nom de toutes les femmes du département de ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay sant di ñaan yàlla li nga xam ne tey indi nga ko jagleel ko jigéenu département bu Koungheul yàlla nga yokk ba yëg ko yàlla boo ci gis looy rëccu comme ni ñu ko waxee rek yaakaar naa mënoon def sensibilisation te jaaruñ ci jigéen ñi parce que ñëpp xam ne ni jigéen ñi ñoo nekk ci kër jigéen ñi ñooy njaboot yi ñoo yor xale yi ñoo yor borom kër yi kon su ñuy sensibiliser tëb jigéen ñi yaakaar naa teggi neen yoon bi kon honorable jërëjëf ba nga xamee ne xam nga loolu nga jaarale ko ci yoon bi parce que dañoo toll ci jamono joo xam ne muy jamonoy mbas nga def un acte patriotique ndax kat ñëpp xam ne ne pandémie bi àddina si yëpp la laal nga ëlbatikuwaat ñëw defaat un acte citoyen nga ñëw jëmale ko ci sa askan kon ñun amul lenn loo xam ne dañuy def lu gërëm la sant la di lay wax ni gis neen ko bu baax a baax te incha allah ni nga ko bëggee ñun daneen ko doxalee noonu ba nga xam ne une femme un masque bi nga xam ne moom leen wax jigéen ñëpp daneen ci gis seen bopp te li nga ko defee dañ koy rafetlu parce que amul xaaj amul seet amul kii ci parti bi la bokk kii ci tendance bi nga bokk da nga ne du département de Koungheul kon dafa nekk acte boo xam ne bu ñu war a apprécier. ñu nuyu ñëpp man Aïssatou Sakho conseillère municipale tey may wax au nom de l' équipe euh, municipale maanaam euh, ñun ñi nga xamante ne nii ñooy jigéen ñi nga xamante ne ñooy teewal département Koungheul commune Koungheul ci maire bi di remercier Aïcha mbay ci lii mu def. Euh, en tant que doomu dëkk bi en tant que conseillère mais tamit en tant que élu national te tamit di ñaax suñu mbokku jigéen yi seen doom yi nga xamante ne ñu ngi jàngi une femme un masque dëgg la waaye nañ ko si cabaxalaale ndax xale yi dañuy jàngi te am nañ doom yi nga xamante ne ñu ngi leen koy wax surtout si xale yi nga xamante ne ñoo war a reprendre cours yi Aïcha nag dañ koy gërëm parce que tey jii nii c'est la première fois man ma gis euh, ñu woo ci remise ci remise une femme un masque li nga xam ne suñ ministre tutelle moo ko taxawal mais c'est une première tey ma gis ko c'est vrai gis nañ ñuy séddale ay masques mais c'est première fois tey ñu wooñu ne nu ñëw leen ngeen teewee toutes les communes sont représentées neuf communes yi nuñ toll kenn ku si nekk yónnee nga sa représentant te jigéen nga yónnee mu ñëw teewal la kon vraiment loolu dañ koy rafetlu te di ko ñaanal yàlla lépp li nga xam ne mën na ren euh, mën na ko ren mbokk yi lii la ñëwoon jël leen ko fii ci Koungheul ajaratu Aïcha Mbaye gis ngeen ko mooy noonu di gërëmande moo loon def euh, ay don indi ay masque plus de 3000 masques indi ay thermoflash indi ay visière pour l'hôpital de Koungheul du leen jagleel mais li ci gën a am solo commune yëpp département de Koungheul ku nekk am na jigéen gi la fi teewal comme ni ñu koy ci waxee rek que ne jigéen bu nekk benn masque noonu la ko ministre bi waxee mu ne mooy itam dana ko def ci département Koungheul femme yaa ngi noonu jot nañ seen i masque ku nekk jël nga solo war a yéeg ak moom kana ñu déglu rek waaw ñu ko kii ko xam ne waaw fa kàlla macha ku ci am sa xolu buuma ba doo ma dara ma yor sama xolu ngaana ba du ma la dara wala fi la juddoo fi la màggee fi lañ ko falee tubaab fa kàlla macha allah jël xolam ji nag dafa ñoo ko